naa leen yéen euh, di ziar caam di la ziar yow. bu baax a mhm. baax wax dëgg yàlla euh, di nuyu téléspectateur u deux cent. Sénégal ba euh, Sénégal deux cent deux cent vingt et ba sa bu baax. waaw non non yoruma dërëm. wax hmm. dëgg yàlla. yaa ngi dégg depuis tey nga assemblée mais bul xam la ca gannaawam. yaa ngi dégg may gërëm sama grand Abdou Aziz Silla bu baax. Hmm. di gërëm Aline Ndiaye suma xarit. Hmm. boroom Alice Couture. waaw xam nga bi mu jàppee ba léegi bàyyiwul quoi wax dëgg yàlla. di gërëm aw mbuub Camara Mbay xam nga euh, Ami Ndiaye sama jigéen bu baax boobu. di gërëm sama alimatu France. du ñu baax daal. di gërëm képp ku may bëgge nag. waaw wax dëgg yàlla. waaw loolu la daal. noonu daal ngay nuyoo nuyoowee ñi nga xamante ne mooy internet yu ñu bàyyi xel ma gëj am ak yow jàkkaarloo bu baax a baax baax xam naa fan senegal Sénégal Buzz nañ la de ah nga leen di wax. no man tamit namm naa leen de. waaw wax dëgg yàlla. Hmm. waaw di bëgg rek xam nga am nga senegal waaw dañuy seetaan émission te du ñu déglu émission. dama bëgg. ñuy xoola ñuy ñuy seetaan. Mm-hmm. Sénégal ba di déglu. Mm-hmm. te déglu ma nag. te déglu la nag. waaw parce que seetaan émission ak déglu émission du benn. Mhm. dama bëgg ñu may déglu ngir yàlla. waaw nga bëgg ñu déglu la ngir yàlla ba taxit sànq ni ma ko waxee rek sa su ne sénégalais dañu lay bàyyi xel ci say kàddu lu bëri ci ay xew-xew ci réew bi euh, actualité boo xamante ne boobu ba léegi sénégalais ñu ngi ciy waxtaan jumboor yi euh, doxoon ci Ahmed Cissé kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko ci benn interview euh, dem ba ni dañoo war a jël li nga xamante ni moo di ay. préservatif capote di ko may si biir jàkka yi. Euh, kàddu yooyu bi nga ko déggee naka la la def ak ni ko sénégalais jàngate. Mhm. xam nga Ahmed Cissé. Mhm. li mu doon site internet yi ñoo ko ko def. Mhm. parce que léeg-léeg yàgg naa leen wax ni Sénégal dafa am ñuy dof dof la am ñu leen di ñu leen di dimbale ci ndof gi. waaw parce que mus nañ daje man ak yow. ma ne la mhm. yéen a ngi jëmbat garab goo xam ni. Mhm. su màggee doo leen ko witti mais ñu koy witti mooy suñuy doom. Mhm. te kooku dinañ ko fi bëgg a jëlee mu tëñu Ahmed Cissé laa doon wax. parce que dafa am lu muy lu mu doon commencé. yaa ngi dégg parce que booy seet bi biñ ko dumaa ca kaw la. waaw yërmandey duma ji si la profité dawal bësam. wax dëgg yàlla. Euh, buñ doon wax nit ku baax la. mooy lim ñu wanoon moo dàq lim ñuy wan. xanaa am loo nit ki lépp loo judduwaalewul du sa gàllaaj mm-hmm. boo toogee di wax ni nañ jël ay kàppoot di ko indi si jàkka yi jox ko imaam yi ak kilifa diine yi ñu jox ko nit ñi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. kooku noonu yaa ngi dégg ba pare moom du moom dong bëri na ñu xam ne dañ naan awra da ngay jaar si digg bi jarul nëbb loo judduwaalewul du sa gàllaaj réew mi moo laajul loolu muy wax. ci anam bi mu koy waxee. xoola munoon na ko wax te mu rafet. mais moom chaque jour bës da koo jaral lu ne. buzz da ko mm. jaral lu ne. Mm-hmm. yaa ngi dégg ku xam ne nii yéen da ngeen ne da ngeen di jàppale da di jàppale nit. Mm-hmm. ñoom dañ ne dañuy jàppale Adji saar moom ak Kaliphone. Mm-hmm. yaa ngi dégg nee na xarit bi Kaliphone nee na yónnee na Adji saar deux cent mille te ñu duma duba toj kanamu Adji caare ci vingt cinq mille ndax mun na nekk. noo jàngatee wax jooju. non kon Adji Sarr ñoom Adji Sarr la ñuy def entreprise li ñuy def du dëgg si ñoom. Mhm. nee nga yow da ngeen di dimbale Adji Sarr di ci wax Ousmane Sonko lu nekk femme bi kee toj kanam gi ci vingt cinq mille. Mhm. Ahmed Cissé yoreel ko quatre vingt mille bi ñu koy duma mi ngi quatre vingt mille moom. ba pare yéen xam nga loo leen ko fàttee laaj. Mhm. lu tax bi Adji Thiaré poñee Californie Ahmed Cissé ñëw mu bàyyi poña bi mbéj Ahmed Cissé. mbeñ mi ngeen ko waroon laaj ba léegi yéen laaju leen ko mbéj mi lu tax gel bi am sañ-sañu mbéj ko. Mhm, mhm. bu fekkante ne nee na gel bi kon gel bi lan kan moo ko jox sa waay kan moo ko xamaleek moom. kon moom la. loolu beneen détail la xam naa dinañ ci ngi dégg mais ci bi laa bëgg ñu waaw non xam nga muy wax. li muy wax. Mhm. yàgg naa def lu xam ne nii ëpp ëpp na sañ-sañam lii parce que boo ñëwee wax wax jooju wax ji moo ñaaw wax ji dafa ñaaw. ba pare wax ji du dara mais fi ñu ko bëgg a yéegal day tax li mu bëgg moom mu am ko xoola dafa am benn garab bu mu bëgg a publicité. Mm. mu ne day sànni pip pip la xaw ma. waaw pip léegi moo tax mu ne leen imaam yi nañu séddale eh, eh, kii. capote yi yi. Mm-hmm. bu ko defee yéen ngeen bàyyi ko xel mu ne bu sa bu dimanche la koy leeral gis nga yéen ñëpp da ngeen waroon a toog ba dimanche pour xamaat li ci des li ci des du ko génne parce que boo leen ne ko day rasu. Mm-hmm. du ñëw dara dugalu ko ci du xam-xam du leneen. waaw li ko ci dugal mooy. loolu muy jar xam nga tey wax xam nga Sénégal la moo gën a bon te Ahmed Cissé loolu lay def wax ba war a noppi continuer di wax. Mm-hmm. ba pare xam nga lan moo ma jaaxal ci yéen Ahmed Cissé bi muy wax si site internet yi ba léegi li mu wax Sénégal Buzz li mu wax si yéen Sénégal Buzz Sénégal Buzz li mu wax feneen ak feneen benn wax bi kese la. Mm-hmm. te ñëpp di ko jël. pourquoi. Mhm. waxal mais est-ce tamit nekkul tamit peut-être ñu ko nit ñi di jëlee lu si bëri tamit ci produit yi muy jaay la ñu koy jëlee ngir mu fësal. produit déedéet gis nga yéen li ngeen di def nii. Uh-huh. dafa nice de parce que yéen da ngeen di seet benn jimboori seetu leen jimboori. Uh-huh. ngeen dem seeti ko jimboori jox leen dara déedéet. Uh-huh. defu leen ko de. mais ñu bëri ñuy dem di ko seeti lim leen di jox moo tax ñuy dem. moo yokk wax ji. boo waree dem seeti benn jumboori mu wax lu am solo réew mi déglu ko wala nga seeti Aline Ndiaye mu wax dara réew mi déglu ko. Mm-hmm. wala nga seeti Thiam mu wax dara réew mi déglu ko lu am solo. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais boo demee seeti ñooñu doo fa jëlee dërëm nga dem seeti benn Ahmed Cissé bu waxee ba pare dindi benn cinquante mille wala cent mille bu subaa ci moom ngay jubali. parce que wax naa la internet bi am na ñu am na ay sites yoo xam ne buru wi la ñuy bañ ñoo raw waañ yëngal rek jóg nañ. kon nag ci mbir mi da jàpp ni kàddu yi mu yëkkati ni dafa jënd ci ñenn ci communication. da leen a lool ngay am sañ-sañ bi pour wax ko. jàmbaar noonu lay demee ay sëriñ bëri na fi sëriñ yoo xam ne boo demoon tey. Mhm. di seet fi ñuy liggéeyee. Mhm. doo leen fa fekk boo leen ne woon fan la ñuy fajee duñ la ko wax. Mhm. seeni cent mille seeni cinquante mille la ñuy yor di ko jox nit ñi. gars yi di daw di ñëw ci ñoom onze la onze. dañ la koy sànni jën boo ko bëggee jàpp xam nga réew mi fi mu toll nii. Mhm. buñ la joxee xaalis ma ni boo xëyee bari na fi si journaliste yoo xam ni. Mhm. yu tele ak yu sit mhm. amuñu solde kenn fayu leen. yal na affaire bi dox nag ba solde di ci am ndax ñu bëri bañ a jaay seen ngoro. amiin na ko yàlla def. léegi boo xayee yow. te yow mbir mi dafa am loo yaakaar kan ngay wër ku dul ku la jox xaalis moo ci nekk. moo ci nekk. moo ci nekk boo ko seetsee mu wax waxi dofam jox la xaalis nga nga dem dugal. mais sañ-sañ bi mu waxee lii nga xamante ne wax juree ji nga xamante ne kenn ñemewu ko ah, jaaraat wala nitu diine mosul taxaw am sañ sañu wax lii ñu moom ñu koy woyee boroom xam-xam mu wax lii. waa mais xam nga lii sañ-sañ bi mu am ba wax ko xam nga ñan ñoo ko indi. Mm-hmm. Sénégal fu mu toll nii embouteillage bi moo bari façon wax bu nekk génn na léegi façon wax yi génn ak bi mu wax. yii génn ak bi muy wax nii ban moo gën a ñaaw. bii dafa am fu mu jëm rek. mais bi jëm ci askan beet dañ ko waroon jàppe comme bi mu jëmale ci diine. Mhm. ki wax wax bu xam ni ci askan bi la ko jëmale. Mhm. ñu gis ni lii wax bu rëy la. kooku bu ñu ko fajoon kii du am fitu attaqué diine. Mhm. salaamaaleykum bi bim attaqué askan bi la. maaleykum salaam bi mooy ñu attaqué diine mais bu ñu fajoon bee bii du am. lii du am seetaan da cee am ba waaw waaw parce que léeg bi mu njëkkee génn ne damay nàmp ca xale yi di def nangam ak nangam. Mhm. loolu bu buñ ko bañaloon ñëpp. yaa ngi dégg. Mhm. defe naa lee du am de. parce que bu sif neexul sippili du neex. Mhm. am na wala amut. ci lu mais dañoo seetaan tey jii léeg-léeg damay toog di reetaan nit génn attaqué Thiam may reetaan attaqué Aline Ndiaye may reetaan. léegi kooku bis bu wëlbatikoo attaqué ma man. te man borom doole laa ma ma ne ko niib téye. gis nga réew mi sax lu bëri lu ñuy wax naan président bi diw daf ko def di former ñu yóbbu ko tëj ko déedéet bul jaawale di former ak wax la dëgg. Mm-hmm. wax bu njëkk bi muy wax. Mm-hmm. bi mu doon wax moom. Mm-hmm. ay nàmp xale yeeg affaire yu kenn xamul nan ngay yoree sa ñaari jabar naan damay nàmp ci xale yi di ci dóor waxal. même bu dee diine la te tey Ahmed Cissé mënu laa wax benn xam-xam bu dul xam-xamu arxuraan moom la jàng. waxal mais lii moo wane ne arxuraan waxi jàmbur la. jarul tiitaru. boo koy wax mun nga sol sa silib sax ñëw wax ko. parce que bindum jàmbur la du sa bind. mu mel ni léegi diine ji ku ci ne da nga koy jël sa intérêt noo ci gisee sa intérêt rek nan nga koy firee ngir mën see gis sa bopp. jeex na mhm. diine léegi dafa de. xoolal du moom kese rek de bëri na ci réew mi. waaw mais politique. Mhm. moo dem ba lekk li fi newoon lépp. politique moo dem ba lekk li fi woon jàmbaar. dem ba xàmmeetuñu bu ñu bojj ak bu ñu boxam. léegi tey politique bi ma wax la benn affaire politique bi indi lii parce que moom si politique la jaar yegg si. que am na ñu muy jàppale. ñi muy jàppale boobu ba léegi moom dafay wax Ousmane Sonko lu salte est-ce que mus nañoo jóg ni kii li mu wax jaaduwut day wax Sonko lu salte. Mhm. waxal rek. Mhm. ñëpp mosuñu jóg ne ko jaaduwul. Mhm. tey jii mu bàyyi loolu attaqué diine ñëpp jóg sa mbokkum diine du diine. ok lan mooy diine sa waay adduna yëpp boo fi jëlee woon doomu aadama est-ce que adduna dina saf dara. déedéet. nekk biñ fi nekk ñun doomu aadama moo tax addina am cafte. Mhm. tey jii nit nekkam si addina moo tax addina saf dara boo dindi woon moo tax nit koo mën a gis xam nga lan lañ soxla ci moom mu nite pour mën a jariñoo diine hmm. mais ñaara ngi nii borom xam-xam yëpp mànkoo nañ si képp ku koy dundee ñu ne doo góor. Hmm. diine yaa ngi dégg diine ak politique day mottalik dund mais bokkul ci dund. bokkul ci dund mais ñoom dañ koy dunde hmm. ñoom ñii dañ koy dunde si lañ laaxatu tey ba nga xam leen problème mu aji saar am jàppal aji saar am bàyyil aji saar si la ñu bëri génnee si la ñu bëri siiwee. si la ñu bëri nekkee suñu kanam di wax ñiy wax ñii gën ñoo lëjal ci problème boobu lañ génnee nii nga faral opposition nii nga faral pouvoir ñii indi di wax wax ju ñaaw jépp laa wax de. Mm-hmm. man dama bëgg nga wax ma ñu kan moo ci génn te nekkul ne problème aji saar lañ la xamee. Mm-hmm. waxal doy na war kon est jotut. pour ñu waxuma de mu ngi si loxo justice de. Mhm. est-ce que jotul pour ñu jël problème boobu suul ko. Mhm. parce que problème bi. Mhm. wax dëgg yàlla ñun ñàkk nañ ci lu rëy. ñàkk nañ ci lu rëy. am na ñu ci ñàkk seen alal. ñu toj si seen si bakkan. yaa ngi dégg képp ku amoon wax ju ñaaw wax ju ñaaw ji di génn. ba problème bi commencé ba léegi si la saaga nday yi génn tànn kilifa naan ko caga nga génn loolu lépp génn. ñàkk respect ñàkk war ma lépp. lépp affaire bi moo ci garab googu lañ leen wittee ñoom ñooñu jàppale aji saar moo leen fi indi. Mhm. waxal mhm. bu ñu toogee ba aji saar naan leen yéen ñëpp boo leen ànd boo leen munta ànd nekk benn. Mhm. ma demal sama bopp man fan yële neew dama génnoon wax ci site internet yi ne leen di ngeen jot ci aji saar man wax naa ko. parce que xam nga lu tax ngeen di jot ci aji saar. aji saar yóbbanteem kenn indiwu ko. moo ko indil boppam. déedéet. Hmm. ñi ñi koy waxal waxaguñu waxi aji saar. seeni wax la ñuy wax. keroog xuloo biñ doon def. Hmm. waxi aji saar la wala seen waxi bopp. Hmm. seen seen waxi bopp la ku ci ne bëgg cee am ndam. waa léegi aji saar biñ ko tegee ci ruq boobu ba tey muy jaabante néeg ba saal ba duus ba waañ wa. yaa ngi dégg ñoom ñuy jaabante fu leen neex. kon yóbbante aji saar ñëwul te aji saar bu yàggee mooy waxal boppam moo tax mu ne moom dana fajal boppam. moom dina fajal boppam ci euh, problème bi ba tey rek laay des taxawaay bi nga xamante ne aussi Mame Matar Gueye Jamra euh, euh, taxaw bu rafet bi nga xamante ne moom la yàgg taxawee ci valeur ak diine def génn na waxtaan ak sénégalais ci kàddu yi Ahmed Cissé def mais ba tey yamu ci dafa jëkkati li nga xamante ne moo di ñetti plainte ngir jëmale ko ci yoon acte boobu Mame Matar taxawee naka naka nga ko gisee ak lan nga ci wax. waaw xam nga Mame Matar Gueye Jamra mhm. xeexkat la de. Abdou Latif géy yàlla na ko yàlla yërëm. amin amin oyofal suuf si kaawam. Mhm. yaa ngi dégg dama bëggoon Mame Matar. Mm. mu mu delluwaat mu suivre ñu tegaat vidéo Abdou Latif Guèye yi. Mhm. tey jii xeex bi boo nee diina laay xeexal. Mhm. ñun ñëpp ci lañ. mais Mata Mame Matar dama bëgg li muy wax noonu. waxam moom dong la wala waxi mbooloo la. ci naka. non cest à maam mataar léeg-léeg ñi muy song day song ñu xam ni moom sax moo leen di defal publicité <coughs> moo leen di may buzz. Mhm. parce que affaire bi war nañ ko waxtaanee. Mhm. parce que yàlla moo njëkk a wax ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu demb. Mhm. bu Jamra ni mu doon xeexee daaw. bu ko bëggee continuer di xeexee xeex boobu duñ ko réussir. parce que borom ñaari tur yi gisoo biñ ko doon xeex ñoom. bañ taalee drapeau. si la ñu bëri si borom ñaari tur yi am visa dem kon munoo xeex. Hmm. xeex xel a koy def. Hmm. parce que drapeau bi ñu taal ñoom moom lañ jël dem si ambassade yi foo dem ni dañ ma bëgg a taal ñu may la visa nga dem. Hmm. ndax loolu xeexu xel. déedéet. tey jii bu ak borom ñaari tur boo ko dee xeex si xel nga koy xeex te xeex boobu ñoom réussiruñ ko dañoo def dañoo rek. ba pare bruit boobu day tax international borom ñaari tur ya nekk Europe. Mhm. daan ni gaa yaa ngi suñu liggéey. parce que yëngatu bi. Mhm. ñoom mooy doxal seen mbir. Mhm. léegi niñ ko war a xeexee lenn la xoola am na borom ñaari tour yoo xam ne costume la ñuy sol. am na borom ñaari tur yoo xam ni grand boubou la ñuy sol. am na ñuy sol di wiccax ñiy wiccaxoo ci gën a ndaw léegi si léegi noo koy xeexee. te yow bëriwul fii borom ñaari tour ñu reew nga am. ak ñu bëgg a tukki bëgg a tekki. loolu laa fi gis. nañ ko xeexee taal drapeau wax naa la ñu bëri si lañ porox ndollu dem. Mhm. du dëgg. Mhm. démb bi ngeen koy laaj am na problème yu mu réglé woon ba mu paase da ko cee tuddaat la la moo problème mu Waly Seck problème yooyu paase na mi ngi koy tuddaat. Mhm. léegi loolu si xel la bokk wala bokkul ci xel. loolu paase na bul wax waxam li tax nit ñi jóg wax ci. Mhm. am na droit képp ku def dara mu pelant la. Mhm. ñun d'accord nañ ci loolu. mais saa boo fajee góom bam góom bi wér. Mhm. bul xolli góom waxal. ba pare entre Mohamed Cissé ak maam Matar Gueye Jamra. dafa mel ni yàlla ak yaali. ci naka. non xam nga Mohamed Cissé bu génnee def benn vidéo di wax ni maam Matar Gueye Jamra. xam naa ne li ma bëgg moom nga bëgg nangam nangam mais entre sama diggante digganteeg Jamra baaliwuma tey baaliwuma suba. Mhm. loolu la ko wax xam nga. loolu la ko wax. mais euh, est-ce que lu ñu leer ne waa jii génn est-ce que xam nga lu ci ginnaawam loolu laa la laaj. Mhm. waa ji rek ngay gis. mais lu ci ginnaaw waa ji est-ce que gis nga ko. kon da ngeen jàpp ne Ahmed Cissé sañ-sañ bii ak lii muy defee nii am na lu diis lu nekk ci ginnaawam lu koy puus. xoola loo mën a gis ci àddina. Mhm. am na bu bu bu amee riir rek. am na ndey ak baay. am na ndey am baay. lu dëgg léegi nag pour nga ñëw faj loolu boo xamul ndey ji xamoo baay ji dafa ni benn nit boobu kese la. yow mun nga yàq lu bëri. parce que affaire Ahmed Cissé jarul muy sori. ñun munoon nañ ko régler rapidement. sans maam Matar Gueye Jamra sax. parce que maam Matar Gueye dafa rëy ci wax ak Ahmed loolu sax dafa jox dayoo Ahmed Cissé Ahmed Cissé nee na Mame Matar Gueye fi mu nekk moom foofu la nekk du loolu la wax. moom génn na ci bu yàgg te yëgu ko. Euh, yan kàddu ngay wax ci li sénégalais yi wax ne Sénégal euh, majeure parti diine la ñuy gën a jaam euh, nu tarixa la ñuy gën a jaamu que diine euh, parce que gis nañ Ahmed Cissé génn def sorti ci benn euh, këru diine ñu fekk ko fa mu nekk duma ko fajal ko seen bopp. Mhm. mais bi mu laalee diine ay wax rek lañu dégg gisuñu mu mel nit ñi tarixa la ñuy gën a jaamu ko diine. lan mhm. kàddu ngay wax ci loolu. non xam nga diine. Mhm. problème am mooy fajal ko si Sénégal dafa yombul xam nga lu tax. sénégalais yi dañuy xaarante ci diine. ok ku ci nekk defa ne yow yaa ko war a def. mais kenn ku nekk bu ko jëloon def ko sa mbirum bopp. Mhm. yaa ngi dégg kon kon tamit dinañ ko faj. Mhm. mais diine li mu war a li mu liñ ko war a jooyal du Ahmed Cissé kese Ahmed Cissé lu ndaw la ci loolu. Mhm. Ahmed Cissé lu ndaw la ci diine. diine léegi ñu ko ñu ko respecté. njiit yu ko respecté sax bëriwul. dañ koy traité nu mu leen neex. jaasi daal lañ ko def di ko kenn ku si nekk di ko daggee sa bopp morom. aaye bu la arrangé nga tari ko bu la arrangé wul nga teg ko ci suuf bu bu xam ne buñ ko waxee tuddaale say mbir ñu tudd ko lool kese la sa waay. diine du neex a xaa xeexal fii parce que diine dafa nekk mbir mu xam ne kenn ku nekk da ciy xaar moroomam mais tarixa nag dañ koo jël def ko seen mbirum bopp moo tax boo nee jëy gaa yi jóg waaw tarixa dafa am bopp diine amul bopp. loolu la rek. kon ci gàttal daal bu ñuy xool tarixa fi gën a dis diine fii ci réew mi. non man tarixa dama ko gis rek ñu wutal ko bopp. Mhm. te diine nag amul kenn ko xam ne dafa génn ne maay bopp bi. maay bopp bi yaa ngi dégg. Uh-huh. maay bopp bi. Mhm. amu ci de. Mhm. yaa ngi dégg tey jii Ahmed Cissé attaqué bi mu attaqué naan jàq dem ba si jàqa. moom munoon na wax ni boroom xam-xam yi munoon nañ jàngale nangam ak nangam kon kooku dafa dafa fësal njaaloo. bi muy jaay garab gi. si njaayin mi rek jekkul parce que garab yii est-ce que xam nga garab garab garab yii ngay gis mu koy jaay waaw da ngeen waroon dem laaj ko ba xam daf ko donn ci papaam wala daf ko donn ci maamam wala fan la ko donnee. mais moom xam-xam bi mu jàng la rek. non xam nga tey garab yi. Hmm. képp ko xam ne mi ngi naan garab yi man maa la ko wax de. Hmm. ba tàmm ko da ngay continuer di naan garab yi ba keroog ngay dee. saa boo amul garab yi yow dootoo jógal. man gis naa ci ñoo xam ni ñi ngi ci dëkk bi dañoo commencé utiliser loolu buñ ko bàyyee seen dara dootul fonctionner. garab yi loolu dong moo ci nekk ah. mhm. yaa ngi dégg ba pare da leen sànni benn affaire pour dimanche mu publicité benn garab par sànni bi ëpp ko doole nii kese la. nii kese la waaw macha allah xam naa ne kàddu yi nga xamante ne leeral nañ ko ci Jimbori kaddu yu am solo la mënul woon ñàkk aussi ñu dooree ko suñu waxtaan waxtaan ci ak yow ndax ni ma ko waxee sànq rek saa su ne sénégalais dañuy xaar say kàddu ci yu mel nii ndax it say kaddu ku ne rek mën na cee jàng jëriñu ci bu ñu jógee ci point bi nga xamante ni